ñaanu yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne jëmm jooju la yàlla dëppale ak ñaan nga fii maskan yi Touba te moo dëkkoo Touba xanaa kon wax jële ah moo dëppoo ñaan nga te moo dëkkoo Touba sëñ Touba rek a dëkkoo Touba arafaha allahu taala bi jaahi mamduhi sallallahu taala alayhi wa sallam léegi muy la wax ne mu junj la addis ba mu ne la ama ahada asara wa salaasa miati ñaan nga mooy atum eh, maanaam junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak benn kon day di dugg ca lañ waxan ci bu demee ca junni ba ak ñeenti téeméer lekk dugg na ca junni ba ak ñeenti téeméer mbooleem gaa yu baax yi nga xam ne moom lañ fiy jégg nag ba di leen tudd lu ci bari bari ba nuy gane jamono fekk na lim boobu éssir ma moo tax bu ci mës a ñëw daal leen xamle ne rek am na am naa sama wàll ci jamono waaye borom jamono gi ñëw. ba Seex Omar Fuutiyu Taal bu baax ba sax bindal na benn téere bu ñu wax Amira jox ko Maam Mor Anta Sali ne ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam maa feeñ wax ma ne ma ki nga xam ne moom moom jamono. ci seen ñuñ lay feeñ te bu feeñee ci sa ñuñ Muhammad lay tudd ñu xamal nag ne suñu Tuubaa mooy borom jamono te nangu woon léegi mooy mi ngi nii min hijratihi ca gàddaay ga man lam yaskunu mu dawe fi maskan yi ilaa kon foofu Serigne Touba méngoo na fi ak ne moo fi nekk mu jaddit bi nga xam ne moo fi ñëw di doon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax bu ñu delloo ci la muy wax war a xam moo tax fi muy wax nii bi ci jamono bi nga xamee ni nii toll na ci jamono bi yépp topp ko ndax euh, Serigne Touba dafa jóg rek coow li daal di koy topp ñëpp daal di koy xañtu naar yi di ñëw di ko seet te yàlla ma na leen basiira ak nóoru boo xam ne nii dañ daan xam waaye yàlla waaye suñ di ci Serigne Touba duñ xam kemam lenn luñ mën a lu mooy dañ koy euh, xalaatoon ne mën nañu ne yonente bi dafay dellu si jamono wax ne na benn bis sax ne ko nun de euh, xam ku ci mel ni yow naa bu ñi mel ne wax ne rasulullahi sunu maam jëm moo dellu si dañuy wax ne yow na waaye nag dafa am lu nu wóor lu nu jaaxal ci yow danu koo topp ci histoire am nee nañu weñ musu koo dal nee itam amul takk deer te yow gis nañ weñ gi la dal gis nañ la nga dox ci naaj wi itam nga am takk deer Sëriñ Tuubaa leen yonente bi alayhi yoon la ñëw jamono naar ba ah, xamulu ko mu ne ko déet dangay wax ne xamuma ko waaye laajal ñi nga àndal rek mu ne ko xamuma ko xamuñu ko ndax man man lañu yaakaar ne maa ko gën a xam te ñoom euh, xamuma ko mu ne ko waaye laaj leen rek moo laaj leen ñu ne ko xamul ndax sëriñ bi bëggul kenn rek yóbbaale ñeneen ndax boo lëggee kooka mën naa taxaw ne man kat waxuma woon waaye xamal naa sëriñ tubaa ne leen yonent bi ñëw na jamono ñetti yoon ne leen bu njëkk ba ñu ne mun ne leen nóor la woon ñu ne amu ne nóor ak leer rekk la ñu ne amu ne ndax leer ñu ne amu ne leen maanaam euh, dina am takk der ñu ne ko déedéet mu ne ba ca mooy ruux ñu ne waaw mu ne ndax ruux wenn dina xam ba mu nekk ba di ca dal ñu ne ko déedéet mu daal di léegi ne sax cu ji dafa ñëw mooy jëmm naar ba daal ko haaxana daal di ne haaxana teg loxo bi ci dënd ba naar ba ne ko naxam naxam haaxana daal teg loxo ba ci dënd ba lii ma lay wax nii sëñ eh, Abdou Rassakh Ndiaye doomi sëñ Fari Ndiaye moo koy wax te xam na ne xam nga mënuwaay bu mën a dem siyaare ji yonente bi lan moo tax demoo siyaare ji ko te nga war a motul sa diine wala euh, da koy bàyyi mu yem noonu ndax xam na ne diine kat ci juróomi ponk yi la tënku asadoon laa ilaha illallah wa asadoon muhammad rasulullah loolu moom wér nañu def nga ko iqaami salaat kenn mënu la ci itaayi sàkkaat kenn mënu la ci sawmu ramadan kenn mënu ci waaye ajul bayti ba léegi defoo ko moom la sëriñ bi man yu xaatibu nii fi sawri rawdati baytaani min xawli man bil urfi ammaar naa ma sur mantu yi bu demal siyaare ji sa soppe ba wayin sa tët bi ka daal lu seen kër yi sore sore waxaala min doon yi sax lu noo xaaru donte ay fur ak beeñ bu nooy boo xam ne mënu suma jaar moo fi moo fi nekk sa diggante moom itam war nga koo siyaare ji Sëriñ Tuubaa ne ko laa yenn naa naka podal min siyaare yi innal muhibba la ko yombale <laughs> sëriñ Tuubaa wax na ko bi mu fii laata dafa wax ne da am na baytillahi alxaraama tarfahul malaikatu ila tuba wa fii rasulullahi kaaba gi jële nañ ko màkk andi fi fii fi màkk mu ànd ak rasulullahi maal xamin ànd ak kunu wóolu ko wax yu laay yi mooy ki nga xam ne moo doon indi wax yu laay yi mooy jibril loolu Serigne Touba ko bind mooy ci xasida gi nga xam ne moom la mujj a bind te ko ceeb dënnam kon ñu jàpp ne daf ko junjeen fii daam waaye leeral am ci bay boo xam ne naar ba te naar bi xamul ndax ba mu ko naan ab lii fadlika yaa wahaabu yaa maliki kaw ni la day ka bi ruuxi sa waaru mooy dem gi nga xam ne moom la Serigne Fallou Mbacke demaaloon ko Màkka tël mu karam siyaare ji yonente bi alayhi salaatu wasalaam soo bindee ab génne baab yi bind fadli jël baab bi teg ko ci kanam lam gi muy Fallou Mbacke Serigne Touba noonu lay def. am lii fadlika yaa waxaabu yow miy may yaa maliki yow mi nga xam ne yaay suma yaay suñu buur wala ko yaay sama buur kaw nii sama nekk la day ka fi yow kaman niki ka nga xam ne bi ruuxi ci ruuxam sawaru maanaam jëmmi boppam di ànd ak ruuxam la ñëwee siyaari yonent bi alayhi salaatu wasalaam sëriñ Fàllu dem fa am na xisa yu ci bari ci xew ndax ba muy wax naa maa la ko waxoon maa ko def kon euh, sëñ Tuubaa ko waxoon moo ko def kon daanaka am mbéy yi nga xam ne moo toppan ci yi ma doon bëgg a wax jiitalal naa wax ji léegi nag bu ko defee ñu dellu ci jas bul xulóo nga xam ne tey bii mooy daara ji ñu nekk Cheikh Mamadou Amine tànnal na ko ndax am na lu ma leen di euh, ci raay ya waaye suñu ko waxtu wi mayee dinaa ko génne waaye comme ci gàmmu lañ nekk dafa am ñeent ñoo xam ne dañoo ànd ak Serigne Touba ñoo xam ne Serigne Touba daf leen def mel ni mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñeent ñooñu di ay saanoon benn maam Thierno Ibrahima Fati maam Cheikh maam Cheikh Anta Serigne Massamba kenn ko nek bu fekke ni dem nga ci bir ray yi la mu jox ñoñe set li Serigne Touba jox ni da nga xam ndax jëm yooyee ñoy ñi wala lu ñu ñoy lan li ak dégg mo la koy may ak itam defoon bu baaxa baax te xam ne Serigne Touba du def dara lo xam ne dafa الله المستعين مع جميعنا لغي sant سونو borom لا tàmbali واي sant سونو borom دي نيكو سيرين توبا دي di فاجي nga xamne mom rek mo xam ku ku mën kuy sante yalla ak yalla mi ni sant moy kan. alhamdu lil haqqul mubin ak kent ñel na kent kent alhamdulil xaq xal mu biin ñeel sant kenn te na ku dëggu ko nga xam ne nag biir na ñépp tey boo wàccee fii ci mbedd mi rek tubaab boo njëkk a gis boo ko laajee nu yàlla tudd ci walla kam dina la wax ne mooy joos boo demee ca sin boo leen ko laajee am na nu ko tuddee boo demee ca américain ya am na nu ko tuddee boo demee France am na nu ko tuddee Sénégal nun yàlla la nuy wax séeréer sama mbokki séréer yi tuddee ko roog seen mbokk alquran yi tudde ko xàlla kenn ku nekk am nga noo tudde yàlla donte gëm nga ko ak gëmoo ko maanaam da nga koy bañ bañ a gëm-gëm lu waaye xam nga ne am maanaam loo xam ne sa xolo ko bañ la waaye eh, li tax eh, ku baax bind benn bay ne nit la muy gëm ak xol mën na koo bañ waaye rex ma ci boppam moo koy nangu nangu moo xam Sëriñ Tuubaa ne alhamdulilah xaqil mubiin man mooy ki nga xam ne gaw na ko liyee yëg yi képp koo xam ne yàlla sàkk na bir na ne yàlla moom am alal kitaabil mustabiin maa jamiin yi am yi yàlla kat indil na nu fi téere boo xam ne nii ànd naag mboolem xiiwal mboolem xiiwal mi ngi ànd ak moom sàkkartuhu dinaa ko sant nag moom suñu borom li ànd na koo xartaata nii mën dari dara yaakaar naa ne bari naa ci sori ahmadu rabbi asim ahmadu rabbi asim dina sam tati ahmadu bi liw ahmadu rabbi asim dina sam sama borom bu Hamdan ba xam nan kasiiran cant gubari xam ne nii bu bari lay doog doon goo xam ne laa yeneen alal karim ko kooka mu teral mooy ka nga xam ne xaadal waraalil muhimi dina omal mbindeef yépp jëmal leen ci ay xiiwal askuru sa asal majid dinaa sant borom aras bu tedd ba subran yu laa xiil ma si dinaa ko sant ba mu dolli ma ay may musalliman alal wahid damaa julli woon ci yonente bi waaye damay julli waat ci yonente bi di ko wéetal nag bi kalkal yi ci sama xol wakkaala mi ak li may wax noonu lay sant yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na dinaa ko wax bañ dégg ko waaye dinaa ko def si sama xol sant xasan yi dinaa ko sant ndax moo ma jagleel bi xidmati maa ngi seen may dinaa sant yàlla ngir moo ma jagleel may liggéeyal yonent bi nga xam ne nii moo ma yëkkati saa xidmatin fil àll nii liggéeyal naa ko liggéey boo xam ne feeñ na lool ba ñëpp xam ko léewoo fàkk wàlle ni ci liggéey boobu nga xam ni nii moom laay liggéeyal yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci la teggee njàqare jàmm ñëpp waaye doo xitaab bi daahiya damay waqanteeg moom xam nga xitaab yi bokkut ak dam damay wax ci moom wala net li ci moom dara daf ne damay waqante ak moom waqante nag mu ngi mel ni ma jàkkaarloo Moussa Diam yi wax